après ok bëgg naa itam nga defal ma benn analyse ci euh, profil de Amadou Ba parce que daf mel ni itam ñu ngi euh, en tant que Sa Touba euh, ñu am na ñoo xam ne li ñuy joxe comme argument rawatina ci biir benn bokk yaakaar mooy Amadou bon amul relation bu dëgër ak waa Touba. Amadou Ba de waxuma la relation bu dëgër ak waa Touba. waaye amul benn relation amul benn relation bu mu am ak sénégalais yi relation bu mu am ak sénégalais yi mooy Amadou Ba kenn mënu koo comprendre mënoo génne fenn fu muy taxaw di wax discours boo xam ne tey mhm. di nga xam ne kii am na volontaire pour bëgg a jariñ réewam Amadou Ba ay discours yu ñàkk solo nga koy def ay discours yu gàtt wax ci français dugg ci otoom dem mhm. maanaam culture bi nga xam ne culture bi nga xam ne dañ koo soxla sax ci ki nga xam ne dafa war a jiite suñu réew mu yor ko amu ko du dem ci sénégalais yi di xam seeni jafe-jafe te communiquer ak sénégalais yi communication boo xam ne sénégalais yi dinañ mën a gis seen bopp ci tey lii mu leen di proposer amul dara lu mu wax loo xam ne tey mën na convaincre benn sénégalais ci ñu am yaakaar tey bu jiite woon réew mi malgré mu am relation ak waa Touba mu am relation waa Tiwaawoon loolu amul njariñ li am njariñ mooy nga xam ne yow Sénégal nga jiite. Sénégal ga nga jiite waa Touba ci biir la nekk waa Tiwaawoon ci biir la nekk. ok te Touba am na lu soxla nin ko soxlaa noonu la ko waa Popenguine soxlaa noonu la ko ñeneen ak ñeneen soxlaa nga am volontaire nag jéem a génne sénégalais situation boobu. boo gisee sénégalais yi di rey seen bopp ci Ousmane Sonko. mboolem discours bu muy taxaw di ko def ci wax bëgg-bëggam ci réew mi amul benn sénégalais bu mën a taxaw te gisoo ci sa bopp ndax moom réew mi rek moom lay wax réew mi rek lay wax foo mën a nekk ci réew mi rek la muy wax yow concerné na la ñii nag ci ay caaxaan ak i tàppale la ñu fexe convaincre yenn yenn yenn chef yi nga xam ne mhm. am nañ baat ci réew mi yenn ni homme yi nit ñi nga xam ne tey fes nañ ci réew mi seq ñoom ay relation fenn fu ne waaye taxaw fa di def discours léegi am na ci sénégalais yu ñàkk bopp yoo xam ne bu ñu gisee diw wax rek dañuy jàpp ne la mu wax dëgg la ñu fas yéene taxaw nag bootu ci ginnaaw kañ leen di proposer loolu du bi. ok deal bi mooy ñu xool ki nga xam ne tey par exemple. Mhm. ñun ñoo xool ba gis ne tey amal nañu njariñ mën nañoo génn ci guta ak ci situation bii ñu nekk ñu fas yéene taxaw gar suñu bakkan ci kooka ngi génn ci situation yi. ngir ñii fi nekk ñu falaat leen amul njëriñ ndax xam nañ li ñu tële ak leen man li ñu tële mooy 12 ans ñi ngi ko fi def Macky Sall nekk président di soppi ay ministre di mhm. dugal ak di génne mhm. amul benn ministre bu mu roppi roof beneen ba mu roof tey ñu gis mu avancé pas ministère booba lu toll ni tarfa temps lu dul ñoom ñooy nekk seen biir di waxtaan seen biir di jariñante seen biir lekk suñuy milliards maanaam ministère sàngam sax boo ko soxla woon mhm. tey doo xam fan nga koy fekk boo demee doo ko gis doo xam lan mooy njariñam te bu dee wàllu transport tey boo bëggee dem ci arrêt yi ngay fanaan boo bëggee xëy dem Kaolack ñëwaat heure bii dina la fekk doo duggagul Dakar te boo duggee dakaar di nga def temps bu gën a yàgg temps bi nga defoon ci yoonu Kaolack mm-hmm. situation yi ñu war koo régler ministre du transport lan mooy xalaatam ci mu xelal président mu gën a yaatal li nga xam ne mooy tali yi xool moyen de transport yi ni mu gën a fee ci sénégalais yi man gisuma njariñu ministre fii ci Sénégal de ngir ministre lii njariñam bu fekkee da ngaa nekk ci secteur de pêche ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu napp gis seen bopp ci napp mi ndax lañuy ñuy nappikat ca la ñuy yoree seen kër yi ca la ñuy dundale seen njaboot yi te jafe-jafe bu nekk mi ngi fii am ndax gis nañ étranger yi ni ñuy duggee ci réew mi yor seeni i bato di napp fii ba pare sunu territoire ñu fi ñuy tere sunu doomi réew ñu napp fa jafe-jafe yu nekk ndaw ñi ñu ngi koy am ci géej gi. te xamuñ fan lañ koy jooyee. tey bu ñu demoon ci ministère bi yor bànqaas boobu tey du leen recevoir xamuñ ko sax amul seen jot. benn jamono nga leen di gis mooy jamonoy bu buñ soxlaa baatu askan wi foo nekk nag danañ la fa fekk loolaa ci période boobu danañ la ko jox waaye suñ ca paree. Mhm. dootu leen gisati dootu leen déggati xamoo seeni bureau xamoo lan mooy seen compétence moo tax Macky sàll bu taxawee tey jii. tas gouvernement bi wax ne dafay def remaniement beneen gouvernement bu bees man maa la wax ne du soppi dara ci ni réew mi di doxe ndax réew mi ni mu war a doxee économiquement dañu soxla ci situation yi nekk ñu génn mhm. économiquement mooy Mansour commerce mhm. wallaahi dafa am jafe-jafe ñan ñoo yor commerce Sénégal boo wëree ndakaaru gépp mhm. dem ci région yi gën a sori sax suñu mbokk pël fuute yi ñu ngi installé wu ci biir région yi Guinée ko fees dell presque Guinée yooyu dëkkuñ fi mhm. Guinée lañu dëkk mhm. seen seen seen nationalité Guinée la du na du du Sénégal ba pare Guinée yooyu tey par exemple boo xoolee majeure partie bi carte d'identité Sénégal lañ yor loolu teguwul ci yoon boo demee Mauritanie gii tey boo fa bëggoon carte d'identité di nga présenté lu tollook juróom cinq kayitu juddu ñoo xam ne say maam lañ soog a mën a am nationalité kon xam nga ne yomb fa dañu war a taxawal gouvernement boo xam ne tey par exemple ministre bi nga xam ne moom mooy saytu hmm. li aju ci ñiy dugg ci biir réew mi ak ñiy génn ci biir réew mi ñuy identifié yu guinéen yi nan lañ fiy duggee buñ fi duggee nan lañ fiy nekkee nun fi nekkee ci yor suñ commerce réew hmm. tey lan fiy gañee nan lañ koy jeexalee benn dañuy jël xaalis boobu di ko yóbbu seen réew wala dañ koy desal ci sunu réew man am na ko ne ma gis na guinéen yi koo xam ne maanaam pièces yi nga xam ne mooy pièces téeméer yi mhm. ci ab saaru soo lañ ko defaral boo xam ne weñ lañ ko defaree da ko ci duy ba mu fees bi mu koy dajji ci kanamam la yooyu baaxul ci économie dëkk xaalis boobu noonu lañ koy jëlee tey wecc ku ko yóbbu ko seen réew kon yooyu yu sew sew la yoo xam ne bàyyiwuñ ci xel waaye lu nu mën a indil ay jafe-jafe ëllëg la. Mhm. ndax tey bu ñu demee ba xam ne secteur bi nga xam ne moo aju ci wàllu commerce tey ay étranger ñoom ñoo ko yor di ko doxale nu mu leen neexee loolu jafe-jafe lay indi crise lay indi mën nañ ko bañ a xam léegi nag ba pare ñi koy def dinañ dem ci jëmmi jamono yoo xam ne duñu leen mënal dara ndax nationalité Sénégal lañu yor seeni doom du fi juddoo xamuñ ci yan condition lañ fiy dundee te loolu am ministère boo xam ne moom moo ko waroon a saytu te ministère boobu xamoo ko xamoo rôlam doxu ci waxu ci kon njëriñu ministre amul gisuñu ko fii ba pare président bi amul ci yooyu nga xam ne tey yooyu la askan wi soxla tey mu di ci wax. Mm. mais nag Sénégal ak di taxaw di ci waxtaan ak. Hmm? Sénégal Sénégal mosul ñàkk a nekk dëkku teraanga. ndax tey naaru libaane yi tey. Mm-hmm. ñu ci bari tey fii senegal lan dëkk. mais yàq lu nu dara. Mm-hmm. parce que commerce bi ñu fiy def tey seen xaalis ñi ngi koy ñi ngi koy dundee ci réew mi ñun ñu ciy gañe mm-hmm. yàq lu nu dara mais dafa am différence boo leen gisee tey di nga xam ne ñoom ay naaru libaane lañ. ñoom sax même dëkk nañ Sénégal mais tey par exemple waxuñu ne ay sénégalais lañ ay libanais lañ mais ñii tey dañoo ëpp sañ-sañ ci réew mi Amadou Ba mi sénégalais yu bari ñu ngi wax ne ab guinéen la. moom Amadou. Amadou Ba man dégg naa ko ci sénégalais yu bari ñu ne ñu ne papaam guinéen la wax yu baree bari. Mhm. loolu nag day nasaxal am réew. réew dafa am ay culture ay buur nekkoon fi daan ko jiite nga dem Kajoor. dem bawal fenn fu nekk ay dàmmeel ak it buur ne fa mhm. ñoo ne dirise woon Sénégal tey war nañoo sukkandiku ci suñu culture yooyu ñiy jiite suñu réew xam culture yooyu xam cosaan loolu mooy mën a tax sax développement bi ñu bëgg ñu mën koo am ndax amul benn réew buy développé yow te xamoo xamoota sax culture réew ndax culture boobu moom moo lay xamal tey bawal nga xam lan moo fa jaadu ci wàllu mbay mhm. nga investir ca loola ndakaaru lan moo fi jaal jaadu ci wàllu pes mhm. nga dimbale leen ci loolu saalum lan moo fa jaadu ci wàllu mbay nga dimbale leen ca loola te mbay yi bokkul mm-hmm. ndax boo demee mboora lépp luy ñor ci wàllu lijum lu ñuy dundee fii la fa ëpp fa lañ koy ñoral nga dimbale leen ca loola loolu nag danoo soxla koo xam ne dafa xam réalité Sénégal di am ci ay conseils yoo xam ne daf leen di soxla ci mbir yooyu mm-hmm. ñu jàppale ko ci wax ko li xew dëgg-dëgg nag mu insisté ci loolu dem ci secteur yooyu nag waxtaan ak ñoom ca la soxla mu dimbali leen. est-ce que débat yi. te loolu lépp nag par rapport ak ni la loolu lépp nag est-ce ko. loolu moo indi jafe-jafe bi ndax fi mu ne bul fàtte ne Macky Sall. Mhm. tey faluñu ko ngir mu nekk fii jamono bu nekk muy def ay remaniement jamono bu nekk ñuy wax ci mbirum justice te moom di président tey du taxaw gindi la ci dara wax ne justice bi kat nii lay doxee ni muy doxee baax na nangam ak nangam mu doon nag lu wóor mu nekk dëgg. Mansour du ma taay di la ko wax de. Hmm. wallaahi li ma gën a bëgg fii ci réew mi jamono yi ñu toll mooy état bu fi ñëw mu séparer ñu pouvoir yi. assemblée nationale di doxal liggéeyam. police ak gendarmerie ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu justice ñu am justice bu indépendant boo xam ne kenn du leen diggal wala mu leen di wax tey fii ngeen jaar wala fii ngeen di aw pour doxal. yow Mansour hmm. tey boo amoon problème ak Mame Mbaye mu nekk un ministre tey bu ñëwee boo amee dëgg nan la jox dëgg. Sëriñ Tubaa jàngale na ko wa ahbibil mu'mini lil imaani wal tubxidil kaafiri lil kufraani walaw ataa ilayka bil jinaaya zaawa zaa bil maali zil kifaaya mhm. loolu loolu loolu boo demee ci risaala di kii di ko fa fekk laxdari mhm. booy booy booy bëgg nit wax na la sax bul ko bëgg ngir yéefar la wala nangam bëgg ko mhm. ngir ngir ngir ngir ngir yàlla ngir jëmmi yàlla waaye nag moo xam yéefar ak jullit wala kum mën a doon bu ñoo bu fekkee dañoo ñëw ci yow ngir attewu ci tooñaange su jamono boobaa nag nanga nga dekk koo xam ne nanga nga maandu ci ñaari ñooñu xool ka yoon jox dëgg nga jox ko dëggam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci de mhm. attekat yi ñett lañ ñaar ñëpp sawara lañ jëm wa maa yantiqu anil hawaa du wax muy dañ mhm. lu mu wax rek yàllaa ko